salaamaaleykum soxna si waaleykum salaam. Ah, nan nga gisee guddi laylatul xadr bi Thierno Moule di préparé nga nekk ci waañ bi. dama nekk guddi laylatul xadr bi Pape Sidi. il ne ça s'annonce bien ndax. Euh, Thierno Moule Sow guddi laylatul xadri bi yàgg na koo def te nee xadri bi lu bëri ca la ko amee lu bëri ca la ko feeñoo ñun daal ñoo ngi si rek ci barkeelu di ñaan yàlla guddi xadri bi yal ci yàlla di sotti barkeel ci barke ñetti Thierno Moule Sow waaw ñun taalibe yi daal moom kontaan nañu kontaan nañu ci suñu daal. la ne fii de dara jeexu defar nañ ba mu baax tubaarkàlla lépp dara jeexu fi ñu ngi defar ba mu baax yar na nit ku baax la di sant yàlla di sant suñu ñaari wér di doon nit ku baax nga xamee ne kii rek ci wàllu ngërëm laay jëkk mu ngi yoroon suñu doom dëkkal ko di dundal di jubbanti bu ci nekkoon ci yoon bu dëgg yaa ci yoon bu di sant yàlla rek ci li mu ñu jàppale suñu doom yi dimbali ñu ci yiir ñu aar ñu ci jàppale ñu ci tey rek yàlla tax ñu ko ciy sant di ko ñaanal yàlla yàlla na ko ci yàlla fay fay bu gën ci fay bu nag ci wàllu organisation bi si leeratul xalaram bii tabaar fa kàlla macha allah ay gëlëm rey nañu ay nag rey nañu ay xar rey nañu ay béy téeméeri ginaar ak juróom ku teg mu fi gis ma dara lu fi manqué amul ñibbi amul tëri ni ngay moom nag di ko jàppale nag ba suba incha allah di ñaan yàlla nag bu déwénee rek def lu raw lii barke nag Moustapha di leen ñaanal yéen ñii di xale itam nekk ak ñoom di leen ñaanal yéen i gudd fan ak wér ak wér li jabar yu baax ngeen góorgóorlu jàpp ci ba gisuma ci dara lu ñuy wax lu ñu bon gisuma ko lépp baax rek la ne baax rek yéen i yàpp yàlla na leen yàlla suturaal suturay àddina ak àllaaxira yàlla sàmm leen sàmm seen i jaboot jërë ngeen jëf yàlla kontaan kontaan jadma lay di ko ñaanal yàlla yàlla fa yàgg te wér damay ko بسم الله الرحمن الرحيم جيب الحمد لله رب العالمين yaa ko tey ndax man rek ñu sama Mamadou Moustapha Sadogho mi nga xam ne ñëw na ci ay loxo mu soppil ma ko rek ma soppil ko ci yàlla bu baax këram kon yal na yàlla may yaa ko te yaa ko fekk yàlla bàyyi ko bàyyi leen fi yéen ñëpp mu fekk ko ci jàmm ak sa ñu jël ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu xarit Thierno Moule Sow xarit général ku li jënd Thierno Moule Sow xarit général international macha allah yàlla fi yàgg te te yàgg wante Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaw comme ni ngeen ko gisee rek mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ah gis ngeen loolu ci waañ bi nag ah lépp lu mat na gëléem yi daanu nañu ah, nag yi daanu nañu xar yi daanu nañu bëy yi daanu nañu ginaar yi daanu nañu ceeb na fi ñu toll nii zéro faute dara manqué wul ñun lu ñu soxla du boisson du fruit du jus cere yeeg mis mi yeeg lépp lépp am na macha allah lépp mat na kontaane di ko ñaanal nag mu yàgg si lool fi wér li mu mën di ren bu déwénee yàlla mën lu ko ëpp ay déwéni déwéni déwéni jërëjëf ñu sant ñëpp di gërëm président Pape Sidi merci beaucoup ñu lay ziar yow tam di la ñaanal yàlla sa liggéey bi yàlla na barkeel ba am ba am ci lu kawe sa njort barke Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nii ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu sëriñ nag Thierno Moulay Sow dëgg yàlla macha allah lii mu def tey jii ci laylatul bi wax dëgg yàlla yàgg na koo def gaa sax waaye dañuy ñaan mu def waaye ati ati ati ati yàlla bàyyi ñu ko fi nag ba mu màgget day raam wax dëgg kuy dimbale njaboot ñi nga wax dëgg yàlla kuy dimbale néew si doole kii dimbale askan bi wax dëgg yàlla gërëm nañ ko santal ko ñaanal ko yàlla wax dëgg yàlla yàlla nañu ko yàlla sàmm ci barke wàccuwaayam di leen wax rek lii fi xew tey suñu xalif général Thierno Moule Sow na fi yàgg te wér na fi yàgg te nekk nit koo xamante ne nit ku yàlla nit nit koo xam ne lépp mu suñu borom kaful ci ci yonent bi ko wàcc pour mu dimbale nit ñi nga xamante ne yàlla daf ko boole junne junne ñuy sonn junne di ñu attaqué def lu nekk suñu njaboot suñu borom teg ko fii ne ah su leen wàccee lee fii benn nit boo xamante ne dina leen mën a jàppale ci lu bëri ci wàllu junne bu mën a wàññee ci seen kaw ndax junne ëpp nit ah li muy def nag ñëpp teg si seen bët wala ñi nga xamante ne teg nañ seen bët dañu xëy na te nanguwul dañoo bañ ndax ko bañ moom kenn mënu ci yow daal mais bu tiim xam ne dëgg rek moo fi nekk macha xam ne dëgg rek moo fi nekk te kuy kuy am sikki sàkk rek ñëwal nga tiim bu la vidéo doy ñëwal nga tiim nga tax bul wax kenn dara ñëwal rek nga ubbi sa bët ba xool nga ñu lu gis sa vidéo sax duñ ko gis ci kàttanu yàlla ñu ñaan yàlla liñ koy rek mooy yàlla na fi yàlla bàyyi lépp lu mu mën ren bu déwénee yàlla na mën ko parce que Thierno Moule nekk na nit koo xam ne moom xolam rafet laa biir ku yëwantu doomu aadama ku man a jàppale yàlla na ko yàlla defal jàmm man de jàmm rek laa koy ñaanal ak gudd fan jërë ngeen def ñaanal